ci yéenekaay yi ak Malick Gningue. ca ndungu siin lañ jëm foofee nga xam ne Bougane Gueye Dany démb fa la fanaan ubbilee formateur mu nga naan ñu Bougane Gueye Dany en prison révélation naan ma Bougane Gueye Dany kay campagne ba moom ñu ngi ko koy xañ niki démb lañ ko daal di dóor mandat de dépôt ba fanweeri fan ci weerab octobre 2000 pour li l'essentiel ne ma Bougane Gueye Dany moom day ay conviction ñoo ko nar a faat tral quotidien Bougane Gueye Dany day mu nga ca ndungu siin ci ab udd fos lañ ko denc de ab ancien udd fos laa la wax la ñuy xamul udd fas de moom mooy fañ doon denc ay fas lañ ko denc moom mii Bougane Gueye Dany ca Tambacounda ma ne ko tàngooru Tambacounda ba ñu boole ko ba pare denc ko ci ab ancien udd fas faat nan doomu jàmbur bi de laas ne maa la ko wax de Bougane Gueye Dany de ca mag bu Tambacounda lañ koy denc tribune ne métti na de métti ci démocratie bu Sénégal Barthélémy Dias ne Bougane Gueye Dany otage bu régime Mimi bi la day déranger Thierno Bocoum ne ñii de ay ragal lañu ay incapable lañu maa ko la tribune naan en 30 octobre lañ ko dara jugé ca flagrant délit l'observateur ne Bougane Gueye Dany kay mu nga ca guddi gu bët setegul te kat ak diagnostic ci stratégie politique subsidiaire bi nga xam ne Bougane a ngi koy def indiwaat ak jàngat ca face à face nga xam ne def na ko ci kanamu procureur ak guddéem gu njëkk ca ndungu siin ca boobee jamono de Bougane Gueye Dany mu nga woon ca ndungu siin waaye Déthié Fall daal di lay trahir coalition boobu nga xam ne ca la bokk daal di fekki Ousmane Sonko ca primature ba mu dalal ko le public moo ñu koy wax Barthélemy Dias ak ñi mu àndal day Déthié Fall daal na leen trahir daal di salfaañe ab avenir politique am nag naan njiital PRP bi day ab bal la dóor boppam cay tànk ndax moom mii ba ay moroomam nekkee ci ay xat-xat ca la daal dina coow dem ca primature daje fa ak Ousmane Sonko lii mooy wane ne Déthié Fall mi di xamul fa muy teg tànkam nga xam fa muy teg tànkam kay moom moom moo di Amadou Ba ubbil point acti mu ñuy xamal ne Amadou Ba de mu ngay assumer chef de l'opposition ba nga xam ne moom la nekk ba pare di tontu ñi nga xam ne moom ñoo ko bëgg a taqal léegi ko de maa ko wax de Amadou Ba day mu ngay làq Macky di koñe Ousmane Sonko yëkkati musuwaar bu weex ne man mii nii laa mel enquête ne loolu tax Sonko di ko défier naan bu ñemee nañ càkkaarloo ci ab débat public Walf TV naan ko cuk su rek cuk su rek mën naa ko organiser de kaay leen jàkkaarloo mën naa organiser mbir ma de Vox Populi ne Amadou Ba nee na leen saaga yàkkam tee xeex de accusation yi nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi koy teg sama der dara amu ca de la muy wax xamu ca tous la wax critique naan ko Amadou gouverner ce n'est pas accuser mais c'est agir direct nit ne maa la ko wax Amadou Ba yëkkatiku na sa kaw daal di rassuré ne lii ñu may taxale dara amu ca ndax diggante 2019 ba 2023 nekkuma ca ministre de te ba may jóge ca ministre des la ma fa bàyyi ci koppar bari na toll na ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay milliards source aané moom kay Amadou Ba daaneel na Sonko nee na la mu wax de xamu ca dara la wax ndax ca diggante 2019 ba 2023 man de yoruma benn ndombal tànkam ministre menace yi nga xam ne ñoom ma koy ñëw maa jàkkaarloog askanu Sénégal daal di def sama campagne te accusation yi ñuy def amul fenn foo xam ne teg nañ ko fa te PIB bi nekkoon na ci treize mille cent quatre-vingt-dix-sept ca deux mille dix-neuf maa ngi bàyyi woon ca kees ga ministre des finances ba lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay milliards te man mi nañ xam ne sama am am gi nekkul lu luñ ma àlde ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy critiquer to nekk ci bopp gouvernement bi nañu jàkkaarloog askan wi wax leen seen koppar ga fan la jógee ak fan lañ ko def mësuñu maa épinglé ci benn rapport la dépêche naan Amadou Ba kay dafar sang boppam ba set wicc tax Sonko naan ko nanu jàkkaarloo Walf TV naan leen kaay leen ma organiser ko amul problème kay man kay mën naa organiser akam ak caa le point moom dikkal na ci ka xam ne yàkkamti na élection bi ba wane boppam ca njaareem di Pape Mamadou Fall ak coalition républicaine bi di sàmm suñu réew jottali kaddu askan wi ñoom day def nañ seen ab assemblée générale ca njaareem foofee nga xam ne foofu lañ baaxoo ne Pape Mamadou fukki fan ak juróom ñeent ci weerab octobre moom ak yi militam ñoom day ñu ngay waajal législative yi nga xam ne ca novembre 2024 la ñoom de lañ wax rek moom moo di daar daar ñu gañe ca njaareem googee nga xam ne fa lañ samp baax samp nañ seeni stratégie campagne te ñoom ñii de dañoo déterminé wu ngir jox Pape Modou Fall ak député ci assemblée nationale ne Pape Modou Fall de a mis l'accent sur l'importance d'une coordination rigoureuse ma ne ko commune Diourbel day la gën a teg gët loolee taxee teg na fa ak directeur des campagnes di waajal campagne ya le point moom moo ko wax aada lam wax war naa tax ñi nga xam ne ñoom ñooy jël gaal gi di dem ca Italie daal di xool beneen jëmluwaay ndaxte waa Italie ay stratégie yu bees tàq lañ teg ñoom day bépp waay goo xam ne jàppati nañ la ngay jéem a dugg ci Italie googu ñoom duñ la delloo sim réew de dañ lay yóbbu ci Albanie foofee nga xam ne tàngoor ga fa nekk maara dayam si dugal la ci benn prison boo xam ne douze mètres carré la lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukki doom aadama lañ ca boole ay miir yu gudd daal di koy tiim ak i caméra de surveillance ñu Marin ne nii de la Italie bi Giorgia Meloni bëgg a takkale mbëkk ma ci seenam réew ndax depuis 2023 lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti doomu aadama gun nañu foofee ci Italie ma ne ko teewul gaay dem waaye nag am na lu tax gaay yi njëkkante Italie ndax dëtëm ñeex mu tàng moom bu amee buuxante rek ak suuxa nga ca suuf ba suba ak jàmm